Euh, ndaje bi solo bi mooy dañu nekk ci weeru jigéen ñi bu ñu nee weeru jigéen ñi sa li muy und mooy dañu war a sargal jigéen ñi li ñu am euh, habitude di def mooy le 8 mars mais nag comme weer bi la donc bés buñ ci jël rek pour sargal jigéen ñi dañ koy def kon nag euh, madame Camara ak ñi mu àndal ñu taamu tey le 19 mars samedi 19 mars pour sargal jigéenu parcelle Assainies loolu ah, dañ koy rafetlu ah boo rawatina nag bu fekkente ne dañ ñu cee jox cër loolu mooy solo bés bi. waa dafa am lu nga xam ne li baax na ñu koy fàttali àddina di koy fàttali suñu bopp yàlla moo sàkk jigéen jox ko li gën ci li mu am li gën ci li mu am mooy lan mooy nit ne ko jural ëmbal jural yaral. def ko muy nit mu nite mu doon jullit wala bépp euh, religion bu mënta doon nga servir sa société kon nag loolu ku xamul loolu ci valeur yaakaar naa ne bàyyi nga d'abord lan yow yaay kan loolu mooy benn fànn beneen fànn bi mooy addina dafa dox ba nga xam ne bi la jigéen buñ ko fekkante ne dañ ko daan yor naam tey dem nañu ci àddina ba nga xam ne bile faw ñaar ñëpp dugal seen loxo ci biir kër gi mais nag dañuy faral di wax ni góor donte da yàlla moo ko sas demal uti daf ko ne li mu am mu néew mu bëri na ko jox ku jigéen ki ku jigéen ci moo ci togg mooy yor kër gi mooy ministre de la santé ndax ku feebar mooy yóbbu mu faji mooy ministre de l'économie ndax liñ ko jox mu néew mu bëri mooy fexe ba mu doy ba ba weer ba yegg mooy ministre de l'éducation ndax mooy seet ndax jàng bi mu ngi euh, mu ngi matle ndax xale yi ñu ngi dem ndax li ñu li ñu war a yore ci jumtukaay ñu ngi koy yor moom it mooy seet ku am yére mu sol social bi moo ko yore ndax mooy mooy ñaw ci biir famille bi donc loolu yëpp moom mooy yëfu jigéen loolu nag pour mu mën a ne dafa am lu nga xam ne bi la tey àddina moo doxee doxinam mm-hmm. dox boobu nag mooy faw jigéen mën a am doole mm-hmm. doole boobu buñ koy wax du doole kàttanu yaram doole koom-koom la doole koom-koom bi nag faw mu jàngi ko bu ko jàngee donte am na lu nga xam ne yàlla moo ko ko may ba pare ndax ku mën a yor kër rek mën a yor entreprise yàlla may na ko donc léegi ñi des mooy muy état bi muy société bi dooleel jigéen jàngal ko ba nga xam ne li mu yor dina ko yaxanal li mu yor dina màgg li mu yor dina mën a yore société li li mu yor dina mën a d'abord yor biir këram ba pare mun na mën a yor ci biir koñ bi yor ci biir gox gi yor réew mi loolu nag mooy solowu li tax ñuy wax développement li tax ñuy wax euh, li ko américains yi di tudde empowerment lu tax ñuy wax renforcement de capacité violence faite aux femmes bëri na léegi mais du ñu ne léegi dong lay doog am dama yaakaar ne sentiment naka laa ko mën a wax de faiblesse la nit war a mën a am di xool waxuma sax jigéena ah, di xool rek ku muy àndal nga ëpp ko mën ko def ko sa doole mm-hmm. loolu pour man d'abord faiblesse la mm-hmm. faiblesse la loo xam ne léegi nit ki xëy na day juddu màgg gis waajuram di ko def waajuram ju góor di ko def waajuram ju jigéen mais nag dafa euh, dañuy fàtte tu tuuti tamit léeg-léeg waajur ju jigéen ji moo koy def njabootam def ko it ku góor ñi mais li ëpp li tax ñuy wax violence faite aux li ëpp dañuy faral di wax ne jigéen mooy le sexe faible violence bi ci moom la ñu ëppee rawatina nag bi covid bi ñëwee ndax ñëpp dañu dellu toog ci biir kër yi dem ak dikk amatul xat-xat yooyu nit ñi nekkee xat-xat yooyu dafay indi xat-xatu xol indi énervement ba nga xam ne bile wax ju tuuti ci biir kër mën na ñagas euh, dégénéré ba nga xam ne bile euh, loxo mën naa jug wala kaddu parce que violence du rek loxo bu jug kaddu wala métital bi nga xam ne bile dinañ ko def ko jigéen dinañ ko def koo àndal euh, violence boobu nekk ci jabar yi mais violence yit nekk ci doom yi. violence nekk ci biir kër yi mais it violence nekk ci mbedd bi ndax violence faite aux yi dem na ba ci biir école yi ndax même entre xale dañu violenté wu. groupe bu gën a mën beneen groupe won ko doolem donc loolu yëpp baax nañu ñu bàyyi ci xalaat mais c'est un c'est un fait dañuy wax phénomène du phénomène de société mais société moo ko mën a. moo ko mën a dindi. c'est un euh, euh, social moo ko mën a dindi. waxtaan ak nit ñi sociologue yi am nañ ci pa pàcc bu rëy mhm. waxtaan ak nit ñi ba nga xam ne loolu dinañ ko war a mën a dindi jigéen ñi li mu leen di dénk mooy xam seen bopp mhm. ba pare ndaxte tey remarqué nañu ne déperdition des valeurs dafa am mhm. da ngay taxaw sa buntu kër dégg ku saaga li gën a grave nag mooy léeg-léeg da ngay gis ne mag la moo saaga mag nag buy saaga xale bi nekk ci wetam moom mu war a nekk référence am xale boobu taxatul ñuy wax donc ñun jigéen ñi war nañu xoolaat suñu bopp ma commencé ko si man seetuwaat xool ndax valeur yi ñu xam ne suñuy waajur yi suñuy diine jox nañ ñu ko ndax ñu ngi doxee ci loolu ndaxte nag dama koy njëkkee sama bopp di faral di wax ne ñun femme chef d'entreprise yi wala femme entrepreneur ndax jaaykatu caaf bi sax entrepreneur la ut dërëm dëgg la neex na lool baax na lool mais dafa war a am lu mu jur ci lu baax ndax bu fekkante ne ut nga ko ba mu bëri te nga gestu xool sa waa kër ah nekkuñu ci lu rafet doxewuñu doxee doxin bu rafet yaakaar naa ne ut boobu amatul solo amatul njëriñ kon nag li may euh, dénk sama bopp dénk sama moromu jigéen ñi mooy nañ taxawaat xoolaat suñuy valeur africaine xoolaat suñuy valeur culturel xoolaat suñuy valeur culturelle ñu mën cee sukkandiku ndaxte dañuy faral di wax ne Sénégal kilifa yu baax yu bari ñu ngi fi kon nañ déppuwaat ci jàngale kilifa yu baax yooyu ñu seet ndax noonu la ñu doxee ñun suñu àddina ndax noonu la ñuy doxee suñu suñuy njaboot ndax noonu la ñu téye suñuy kilifa yi ñi nga xam ne ñoom lañ ñu yàlla dénk muy suñuy borom kër yi ndax noonu la ñuy waxee ci biir société bi ndaxte warante bi bëri na boddante bi bëri na ah njublang bi bëri na nañu seet naka la ñuy mën a doxee ba loolu war a mën a dañ